Boy ñaa mooy dugg si noonu mooy dugg si noonu nekk ci kanamu oto bi maa koy seen mais maa ngi seen Bamba benn Boy Niang bu concentré waaye maa ngi seen benn Boy Niang bu serein gis ngeen ñi mu àndal noonu ñoo ngi wis xorom si Bamba bés du gën a rëy bii bés bilaay maa la wax li xaadim bés du gën a rëy xale bi dafa décidé mébétam yëpp mooy jaar jàll dem waaye ki muy dajal champion la ki muy dajal bëri na bés bu ne xaadim ki muy dajal bëri naa ku ne bamba booy ñaawa ngi noonu ay le treize ak Baye Aly Ndiaye Albourakh Events xale baa ngi noonu day wàcc day wàcc day wàcc dafa bëgg a wàcc booy ñaawa ngi noonu bamba gars yi mënuñu koo may mu wàcc tay la seen ultime to face face to face bu mujj moo nekk noonu jàkkaarloo bu mujj bi Bamba moo nekk noonu ndeysaan maa ngi seen ñoom Cheikh Niang ay maa ngi seen ay magam mu ngi noonu capacoli baa ngi noonu dégg nga supporter yaa ngi noonu naan buur yàlla ñoo ngi lay ñaan booy ñaa jël ndam li ay le treize ku jël ndam li Bamba kuy jël ndam li le treize kan mooy jël ndam li le treize Boy Niang koy jël wala Lac de koy jël wóoruñu en tout cas ñu ngi wis xorom rek ñoo ngi wis xorom si Bamba kaay ni balaa ñu lay wisaale ci xorom si Bamba ñëwal nii mu noonu day wàcc xale baa ngi noonu dafa bëgg a mam bamba waaye yëf yi ay lamb kañ lay bàyyi jaxasoo lamb acca acca acca bismillah capacoli baa ngi noonu pa màggat ndeysaan bés jaaxalu ko bés jomalu ko waaye ki mu dajel xaadim ki muy dajel ndeysaan gonek Pikine gaa ngi noonu Seydou Cheikh Yérim la wàcc la bëgg Bamba maamam Cheikh na Cheikh Sadi boo ko seexal moo ngi noonu waaye wàccagul wàccagul ba tey capacoli bi daa bëgg a wàcc xaadim wàccagul pa màgget waaye tension bi tel na bari capacoli baa ngi noonu le fils de Gaulle day wàcc bamba daraje Rasulullah day wàcc bàyyi leen ko xale bi xam na bés mbir mi wàllub teen la wàllub teen la ku ñëw ca muntu ba ngay yem xam na bés koy ku daje guy gi dañuy Sa Thiès baax na day wàcc nañu ko bàyyi mu wàcc ay waay nañu ko bàyyi mu wàcc nañu ko bàyyi mu wàcc na ñëw na ñëw na booy ñaa yegg si moo mën a yëngal mbir biraay mbër day saf xorom bari bay de xaarim bamba ko wax de doom bu màggee nduru bàyyi tumam ndeyam jeex champion la xaarim doomi dégool la ay ca mu noonu ñaari nit wax dëgg dañ ko organiser wax nañu dëgg waaye ay Bamba la gendarmerie nationale <laughs> ay ku fi yëngal ku fi déconné Bamba danañ leen nii liif ba nga xam ne lépp dëgg la mu ngi noonu xaadim capacole bi ne dugg si xool la gendarmerie nationale Bamba <laughs> ndeysaan wallaay ndeysaan ayca mu ngi noonu day wàcc ba ñu ngi wax ni mu war a demee maam Bamba waaye maa bëgg bii bés <laughs> bésu làmb la day joxoo dara jeex Rasulullah non day neex day neex dina am bëre dina am cooke waaye maa bëgg loolu booy ñaa wàccaleew itam nag bul ma créer booy ñaa sama kër aawala ay te war maa guddee wàccal booy ñaa pikin Pikine Guédiawaye xaar xaar ma filmé la booy ñaawa noonu bamba càppa coli bi mooy dugg si noonu xaadim xale baa ngi noonu taxaw na ci kaw oto bi lu muy def man buur xaw ma ko en noonu boy ñaaw gi nonu gis ngeen ay biri bi mi andal bamba ay biri bi mi andal bamba bamba boy ñaaw biri bi mo andal lii lan la mo ngi nonu may seen chapacho li ngi noonu le fils de gola la mo ngi nonu ay way way way he eh, eh. he bamba boy ñaaw gi nonu ay eh, xoola cëppi cëppi way ay xoola cëppi cëppi way xala ba gi cëppi cëppi xarim mu ngay dem mu ngay dem day yek ay mu ngay dem day yek journaliste yi dar nañ ko caméraman yi dar nañ ko dëggal ay ay dëggal per gànna ay dëggal per gànna mu ngi naan tey ngeen dee tey ngeen dee booy ñaa ñëw na tey ngeen dee ndeysaan mu ngi noonu ci buntu bi ba dugagul gaañ ay protégé wax nañu tàmb la ndeysaan mu ngi noonu ci géew bi mu ngi noonu ci géew bi Boy Niang pare na ay waxuma ko moo ko wax ay nekk ndaanaan xale baa ngi noonu wallaay ndeysaan toog na jëm fan la jëm fan la jëm fan la jëm Boy Niang fu mu jëm dari Diop Boy Niang fu mu jëm Bamba moo ngi doon toog waaye Lac de ñëwagul Boy Niang wa ngi doon toujours confiant Boy Niang wa ngi doon toujours égal à lui-même Bamba